عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق من لا إله إلا الله ولا تكن من لا إله إلا الله سواري من لا la Barham Universal Media. Now. Pequeño yo. Sí, vaya ya. Ya ya. Chao, Mike. Mali Ba mu présenté gan ñu tedd ñu bàyyi ko ci xadaratu Ibrahimiya man daal naa de Mouhamed Ndao ayaji la res maa ngi la kër Sow lay fii la te nii la nag fii la te nii la kenn mu ci dara fii la te nii la ba yëf yëpp xumbee ñëpp aar waaye booba sa bàyyi neex naa xool moo yàgg a rafet moo yàgg set moo yàgg a doomu aadama góor googu jóg ne ko sëriñ bi tey nag ñëpp yëngu nañu waaye dama bëgg nga ñaanal ñu yàlla suñu gune yi ànd jublu yàlla xam moom la daan tontu rek du problème kooku moom moo ko moom tubaab bee ko fent mais ak sëriñ aadi la ko yàlla may mu ne ko du problème 76 77 mois de août fooy dugg tàkk fii gunu yëpp soo ñëpp jublu baax ñëpp xam yàlla ci loxol maam Nuuru Diina bàyyi alaaji baabu moo fi indi sa baay kooku nag dama ne ñun taalibe bàyyi la bàyyi waxoon ca ngóodi ba yaquuduhum ilal jinaani saalum wa fiihi maas yaquuduhum ilal jinaani boobu bàyyi alaaji baabu moom daf doon jël aljanna dañu indil moom mag ñi dañ doon jël nit ñi da yóbbu aljanna moom dafa jël aljanna indil ndax moo ñu indil Cheikh Mouhamadou Hadi indil ñu Alaaji Abdoulaye ñaari yoon ci dëkk bi indil ñu Cheikh Mouhamadul Amin indil ñu Baye Cheikh Ibrahima Fall booba fekk nañu fi xaw a tàng ndax luñ mii na gudd la woon waaye loolu yëpp jeex na sa bàyyi noonu naan du la jeex jeex na mu ne ko dëkk bi nag bëgg nañ nga ñaanal leen mu wax ko Baye Sura Fall mu ne ko li ma lay signal daal mooy sanc yàlla sanc na fi teju daal li yaa ngi toog alhamdulilah bés bii nag keroog biñ ko njëkk a def sa baay moo yónni Babacar Thiam yal na yàlla yokk leer ña ko tàmbali woon fële dama dugg ci tànk bi gis tàkk ruus gis gis affaire bi te keroog biñ ko njëkk a def basan buñ lal sax amuñu ko ñëpp ci suuf lañ toog maam Nourou chaise yooyu amoon ñu koy leer yooyu daan jar ay 2000 francs moom lañ xàbbi Aliou Mbaaxee ci lañ toogloo maam Nourou Babacar Thiam tëbure li ñuy wax tëbure kaat lay doon ñu wut benn nga garaay tegal ko ci loolu ci la toog di sigal keneen ñu def ko fii ci buntu jumaa ji ñëpp a ci suuf kenn toogul ci basal amuñu ko waaye sa baay moo yónni Babacar Thiam pour mu ñëw tàmbali bis ñu def ko ci buntu jumaa ji muy sikar de sikar de sikar ba ñépp dañ jooy ñii daanu ñii kenn xamatu sa borom ñépp dellu ci yàlla Babacar Thiam ne maa ngi ñaan yéen ma sub yi warul leen ma may sikar ba màggat bu ma tee Baba Wilane ci sikarkat yi moo jox ne ko Babacar Thiam Cheikh Mamadou Hadi moo fi yónni soo nar dee te sa xàpp dee jotul doye la buñ jotee naa la sama bakkan bu keragee ne ko ñëpp seede na ma yàlla jël Babacar Thiam toog Baba Ngiraan moo ko waxoon Babacar Thiam yaakaar naa def na toog ni sikkar ba doyal ci sikkar waaye la ci gën a kéemaane sa jëmbatu bàyyi du dee xëyul xëyul lu mu wax buy kafit yàlla dëggal lii firnde ci loolu ba mu ñu yebalee Babacar mu ñëw fi keroog ba mu doyalee ci sikar ñu tànn xalifaam fii ci dëkk bii muy Cheikh Ibrahima Niass sa baay yi tànn ko teg ko foofu ci taabal ja muy xalifa ak Babacar Thiam tey yàlla bu mu kon ba léegi taabal yi Babacar Thiam jógu fi ndax xalifaam moo fi toog ba loolu nag bu ne duñ ko seetlu ndax am na ñoo xam ne booba xëy na juddoo kon sa baay fi jaar ak moom waaye dëgg dëgg bàyyi alaaji baaw ba kenn mënu koo fay liggéey bi mu liggéey fii ci dëkk bii kenn mënu koo fay ndax ñooñu mu jël indi ñu leen ba indi bàyyi Seex Faal keroog ba may wax loolu man maa ko teel yetam boobu mu daan teel mu ne sanc yàlla sanc na fi te du mos a dal Babacar na sa xel dal tey la fi yàlla gën a sax te du fi jógati yow nag dañoo sant yàlla ci yow fekk nga ma ci gàmm gi ñuy def Dakar ma ne la yow mën ngaa wuyoo saytaan yi ñaari sëy maa ngi ko jële ci sa gémmiñ yu bàyyi mu wax kenn ma ko nekk lu ma fekk sa bàyyi ne dafa yóbbu Serigne Aliou Cissé radiyallahu anhu ca France muy fay bañ demee bay yàgg réew yi yëpp ñëw di ko seet si France Serigne Aliou gisul ku dëkk Sénégal pour seet Serigne Adi mu ne ma yeewu dem ne ko Serigne waa Sénégal day bëgg nañ la comme ñëpp te man gisuma fi kenn mu seet si la wér na ma ne ñàkk rek la Serigne bi dama bëgg nga ñaanal Sénégal yàlla ubbi fa bunti war sax mu ne bàyyi Serigne Aliou ne ko bi ngay wax te daanee goo dégg naa ku ne amiin moo tax na xel daal bi ñu defee loolu ba ca suba sa mu ñëw nuyu si waat ko ci fañ dal ca place ba mu ne ko sëñ noonu la daan waxee ñi ko xam di gént di ngay may nàmpal doom ji góor sëñ Hady ne ko alhamdulilah loolu wér na ñibbi rek la wér nga te ñibbi. mu ne ko déedéet da nga xam doom ju góor mais duma ko fekke booba sëriñ Adi fu nekk mu ngi fay dugg di ñaan lu doom ju góor mu ne ko da am doom ju góor man ñaan si tali si si duma ko fekke bu keregee nag sa xel dana daj tuddee ma ko mais ba ma ko tuddee tuddee ko sëriñ kon sa baay moom sëñ Aliou Cissé la la tuddee mais baay sëñ Aliou Cissé moo la tuddee sëy Cheikh Ibrahim kon mën nga uyoo ñaari sëriñ say xaaj yow nag fii sa baay daf fi def lu rëy Baram Diop daf ma woo këram ñaari fan te yàlla rek tax maay wax billaay duma ko fenaan ñuy waxtaan ci yu bari man ak moom kese ndax dañoo tëj yoon bu mujj mu waxtaanal ma ci sa baay lu bari laaj ma ci yu bari yu bari ma ne maa ko mu ne ma yaa wax ji li ma ci gën a neex maa ko fekke maa ca bokk maa ko jiite ñetti point yooyu yëpp soo waxee rek benn nga indi maa ko fekke mu ne ma loolu ma gën a neex ci wax sa baay la ñu fekk ñu sonn gërëm gannaaw buñ ubbeekoo ci yàlla dañoo dugg ci nattu yi yitti bu juuf ne yàlla koo xam mu nattu la ay nattu dugg sa baay jóg taxawuñu bii loxo di sa baay bii loxo mu def ko sa maam jaani si sey moo tax yow suñ ñaari suñ ñaari kilifa suñ kilifa nga ci ñeseen suñ kilifa nga ci kiiseen ndax sa maam bu tàngaan ba tàng su ma seenee oto bi damay kontaan waaye moom it ku ma bëggoon la macha allah. kon tey taxawee nga fi ñaari maqaama xett li man gëm naa ne xaw siyatu illaahi bii xett li nit ñi ci nga toog yal yàlla dëggal loolu ñu dala gërëm sëriñ bi sa taxawaay ñu ngi lay fuglu bu baax maam nooru nag fooy du bi tàkk ci loxoom dëkk bii nag benn bopp keesara benn maam keese moo leen jur ñëpp yaa moom sa baay moo tax léeg-léeg daal mu ñëw nuyu di ñëpp ñu ci bëri kilifa yi borom dëkk ba imam ba nangam li ma wax am nañu ko seede alaji Talla Gueye alaji Ali alaji nangam borom dëkk bàyyi laay yaama wër nit ñi si ko mu topp ko ba lan lu mu am nag rek da koy may day kontaan boobu ci moom waaye nag mu am ay doomam ñu ñëw jàppale si ko waaye sa baay moo ko fexe moo leen mu ko ndukkumaan yi nekk leen benn jàppante ne Baye kilifa nekk benn ñu jàppante nekk benn mu am ñaari kilifa yoo xam ne dañoo ñëw jàppale si maam Nourou maam Nourou jàppale leen mooy Cheikh Abdou muy Cheikh Ahmad Daal alayka salaatullahi thumma salaamu fa